tey lii dafa wane rek ñoom dañu suivre sama gis-gis sama vision mooy accompagner euh, les femmes pour un développement de la ville de Thiès donc tey euh, bi ñu ñëwee euh, taxaw nañ apporter sunu doole parce que dama ni rek man duma ni mën naa dimbali waa Thiès loolu kenn mënu ko mais dañuy ñëw rek indi li nga xamante ni moom lañ yaakaar ni buñ koo indee kees dina mën a jëm kanam mais heureusement ba tey samay femmes euh, accompagné nañ nañ ma si loolu donc tey ñoom ñoo créé seen réseau boo xam ñoom auto autofinancé seen bopp man damay ñëw rek pousse leen pour que ñu mën a demal seen bopp. jigéen dañ ko war a taxawu pour mu autonome mais aussi balaa moo autonome dañ ko war a capacité c'est-à-dire defal ko ay formation bu leen di jox di leen am. ay jumtuwaay yoo xamante ni si la ñuy mën a dem liggéey euh, ba loo xamante ni dina leen mën a jariñ jariñ réew mi comme euh, li ma wax rek ñun Thiès la ñu am donc tey bu ñu booloo nekk benn dañoo war a àndandoo liggéey pour Thiès gën a jëm kanam donc tey moo taxoon tey ñu lancé suñu caravane pour euh, commencer le financement des des des des femmes tey nag gis nga ko. Euh, financé nañ six groupements de femmes yoo xamante ni ñoo bokk ci réseau bi donc nag euh, loolu dañ koy wéyal du yem rek ci tey donc am je pense que euh, réseau bi li ci nekk ci groupement pare na donc tey loolooy suñu gis-gis loolooy suñu vision ñëw indi suñu doole pour que jigéen ñi mën a mën see gis seen loolu je pense que ni bu ko président Macky Sall wootee ministre am di ko ko matérialiser ñun kenn duñu ci jiitu ndax ku xam Ablaye Dieng xam le mouvement Siggi Jotna mooy moom si dynamique d'action la nekk mooy loo xamante te ni rek lu ngi koy def ngir askan bi ñun dañ si ñëw taxaw te président Macky Sall li muy def rek ngir askan bi moo tax parce que tey ku wootee euh, Sénégal bu set Sénégal propre donc tey bëgg na askan bi nekk si cadre vie boo xamante ni dinañ mën a am épanouissement mais aussi dinañ mën a am cadre d'expression parce que nit euh, fi nga nekk dafa war a set balaa ngay mën a wax ku wér yaram parce que ku amul set do am wir gu ku amul wir geram do doo mën a liggéey moo ma ñaax euh, sama jigen li nga xamanteni ñom lay andal di euh, le réseau des femmes de sécurité Jotna ne leen activité yi ngeen jox na ngeen si bolé ay activité set setal donc di dugg si gox yi di ko bale ba mu set mais aussi balé bi dafa wara nek lo xamanteni day régulier du lo xamanteni rek da ngeen koy def tay toogaat ak doko def ki même sa kër bokay balé bale da koy bale tous les jours donc je vous leen ñaax moo mais aussi accompagner les par des moyens matériels ndax ñu mën a euh, di parce que c'est un appel du président de la république du ñun président la ñuy donc lépp loo xamante ni woote na ko rek kenn du si le mouvement Siggi Jotna ñun Thiessois tous ak sénégalais yëpp am nañ ci parce que tey euh, mënuma concevoir dëkk bu mel ni Thiès amul plan d'aménagement d'évacuation des eaux pluviales donc tay ñun ñëpp am nañ ci responsabilité ñun nak am euh, am nañ ci solution. ki ay ay nit li leen jëk war moy assurer d'abord la sécurité des populations assurer sécurité des populations du rek. ay lampes mais créer plan de boo xamante xamanteni dafa am lo xamanteni c'est naturel mais yoy aussi war nañ koy sóor ngir ko bu ñëwé nit ñi baña am ay problèmes parce que li ñu fi gis xawna doy war ay nit ñoo xamanteni ndox bi jël na seen kër te je pense que aussi responsabilité ñi nga nous ni ñoom dénk suñu commune donc daal maa ngi profité aussi occasion de remercier ñi nga xamante ni vraiment ñoom accompagner si caravane bi d' abord remercier remercier le ministre madame euh, le ministre de l'économie numérique Adja Ndeye qui a envoyé une forte délégation pour ñëw accompagner son chef de cabinet Marème Kassé mu ngi fi mais aussi fu ma dem rek responsable de la coalition Benno Bokk Yaakaar yi ñëpp génn nañ lii mooy rek. Thiès euh, am na unité. li ñu ko war a def rek mooy ñu matérialiser ko ñëpp booloo ñu nekk benn parce que xam ni benn Thiès rek moo am benn ambition rek lañu am benn vision rek lañu am mooy développer Thiès. donc maa ngi remercier les jeunes de l'APR seen taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko derrière. ma modeste personne pour que mission bi ñu am ñu mën ko yeggale ngir Thiès jëm kanam mais aussi pour jàppale suñu président le président Macky Sall